Thank you man jalis laa yor jalis bu metti sax sasuma ci kenn tamit ñaari fa ñetti nekk mën na yóbbu cent trente mille fukki junneeg ñett laay fay ndax soo demee mardi mercredi jeudi vendredi laay demaat xam dafa jege yantoo aw kenn ku jàppale am naa rakk waaye aw ma mag boo su su niir boo mën jàppale wala borom kër bu mën a liggéey nii mën na jàppale ma defis mënoo ko aw ma ko aw ma ko ci ci lu yàlla yi rek laako ko laa ko laa ko laa ko kay boobu ba léegi laa wax mu soo demee ne boo manqué junni sax dalay koy fayeeku junni sax du la ko manqué doo ko manqué damay damay damay war a dem sax du ma dem su guddi googu du ma nelaw wante yàlla def na ñii tamit ñoom ñoo ci jàpp. man de man maa ngi woo ñëpp xeebu ma kenn képp ku ma mën a dimbali te yàlla tax man de su ma sañoon tey jii ma am ku ma dimbalee kii bi nu mu tuddati li bi li bi rein soo amoon ku ma ci dimbali ba mu mën koo am ba mu mën koo faje man moo ma gën ñëpp maa ngi leen di woo. man daal sonn naa xam naa ne xam nga yor ay xale yu ndaw nga mel ni daan daan liggéey di jàppale yaay daan ko fayal lu yaas xam nga tey kër gi ñu dëkk nii sax moomuñu ko borom kër ga ak may génne. dagg na courant moom dagg na ndoxam ne man daal maa ko neexut. ci laa ñaan dimbal fu ma mën a dugg rek fu ñu ma mën rek baax na. ku mel ni Waly Seck. ku mel ni kii première dame Marème Faye Sall Ira Ndaw man yàllaa ma booleeg moom man yàllaa ma ko bëggloo moom man defal ma dara wante dama ko bëgg bëgg ci ay affaire ci dimbale nitam fu amee sax paquus bu ndaw bu moom boo dugg rekk man baax na bu dugal sama yaay ji ndax ñun tamit lu lu mu ñàkk tey ji ñun ñoo ko xañ boo duggee ci sama néeg bi bi da ngay waaru ah dañ koo teg ay valise ba ba mu ba mu jóngóoral lii tam métti na de ay xale yu ndaw rek laa yor mën luñ seen bopp dara mën laguñ seen bopp dara ma bëggoon daal ku ma ci dimbali rek yàlla tax ndox may naan mi nii sa maa ngi koy door am nii démb ndox sax la occasion ba ndox ndox ndox évian ɓe nen mankoy to am ndax ci ndoxu ndaa bi laa ñun nag ñu ngi dëkk jek saw 2 xamna ni Sénégal amna ñu ko mën té nañ ko yóbbu bitim réew ñu fajj ko ba mu tané mëna reprendre activité parce que ku xam soxna si muy waxee nday ja roqee ja man mii man mii nga xam ne ne man moo ma yar xam naa ni boo gisoon démb ak kii nekk tey danga naan noono te tey ji ku xam insuffisance rénale moye lu mu laaj lekk yu mu laaj tëdd fu baax da ko laaj dégg ko ci ay wax mu ne la seen waa kër lekk gi ñuy lekk moom ci lay lekk te alors que ku xam insuffisance rénale yooyu lekk yooyu baaxul ci moom léegi nag moo tax man may lancé benn appel ministre de la santé na ko jël en charge yóbbu ko bitim réew ba mu tanee nekkaat ci activité am léegi nag ñëpp ñoo xam ne dañoo nekk en difficulté état bu mu xaar situation bi di aggravé wala ba presse bi di si jot ñu door a waslu àqam. ku leen bëgg jot mooy toujours numéro bu ñu leen doon jotee rek muy 77 bi 171 03 92.